دانت دندل طريقة دانت دندل قدينة دانت دندل طريقة دانت دندل قدينة أنا جيبك سن بابكرو لختك وموي دانت دندل قدينة دانت دندل طريقة دانت دندل قدينة دانت سكن بك سن بابكرو لختك ونمهجن قرقين أنا جيبك سن Babakaro loxo ca kaw ma way dana dina dal nga diine dana dina dal tariqa bi dana dina dal nga diine ji dana ku si gën a bëgg sëñ Babakar loxo ca kaw ñu màggal ngër gi dana dina ana sama yaay xarit faal yow lay wayal dana dina sama yaay lay bégal sëñ Babakar sëñ Babakar dana dina ana soppay Cheikh Faal seen loxoy ca kaw dana dina man yéen lay bégal ay ci sëñ Babacar daanatina ana soppay Cheikh Fall daanatina daanatina man yéen laay bégal ay ci sëñ Babacar daanatina sëriñ Babacar daanatina la bëggee daanatina bis boo ma ràmmul daana metti ci ñun tey daanatina sëriñ Babacar ñu ma la bëggee boo ma ràmmul daana metti ci ñun tey daanatina sëñ Babacar ku la jox xolam daana dina bu la bàyyiwul dina dem aljana daana dina Serigne Babacar daana dina ku la jox xolam daana dina bu la bàyyiwul dina dem aljana ku fi gën a bëgg sëñ Babacar loxo ca kaw ñu màggal góor gi ana soppay def leen nii di sargal sëñ Babacar def leen nii ngir góor gi def leen nii ngir sëñ Babacar waaye Seydi Mbay di sawaay Seydi Mbay di sawaay Seydi Mbay di sawaay Seydi Mbay di sawaay

Seydi Mbaye mooy sawaay def lii nii def Seydi Mbaye di sawaay sama yaay Seydi Mbaye mooy sawaay def lii nii Seydi Mbaye di sawaay jabooti yaa xalifa Seydi Mbaye mooy seen waay ana ñuy bëgg sëñ Babacar def lii nii ma way góor Seydi Mbaye di sawaay Getting for quite to make life, not in a country. I don't my darling, don't go away. my darling, don't go away. my darling, don't go away. ati ma jaani ñangoore ati ma jaani ñangoore ati ma jaani ñangoore yoro ati ma jaani ñangoore wattul ma mbay wattul ma mbay doonati na eh, wattul ma mbay mooy mooy ya waayal waayal wattul ma mbay mooy mooy ya waayal waayal wattul ma mbay mooy mooy ya waayal waayal sallallahu alayhi doon lay solo doon fi gën a bëgg sëñ Babacar doonati na doonati na doonati na nanu yow talaata talaata ca tisimba yaram ja iza abdo salaata salaata fa kullu wumo andatey andatey maa fi maa fi hadisil badisil tey ngay tax góor gi talaata dundal nga diine dundal jaare xaar ku fi gën a bëgg sëñ Baba loxo ca kaw ñu màgg gën a إنني قد كنت من أهل النار إنني قد كنت من أهل النار مسكني بيا غاري أندري ناني أرمونه ذاك الغدر ذاك الغدر رمت النار إلى رمت المدى رمت رمت المدى رمت رمت المدى رمت رمت المدى رمت رمت المدى رمت في قلبك سن بابا قلبك سن لخطك ونما قلبك وقيس ما لقيت منكم واحدا لقيت ما لقيت منكم واحدا يقول ما ابن يكون الشاهد بيدانتنا الجنة بدائه معروف أنا وهي من بينهم مالوف مالوف الف معلف بلا حجر سلسلة تحقيق قولي وعملي بذاك دب مثبت محفز محفز مسدد عزيز لو شكاو I love this girl دانتنا دانتنا دانتنا في قلبك سين في قلبك سين خذ كوني ما أنا تعلي بشير أنا تعلي تفنيني غير غير انا تاني بشر انا تاني تفنيني غير غير انا واكر def leen nii ngir gën gi ana sopp bay seex saat buy bay seex saat def leen nii ngir gën gi ana xaadir yee def leen nii ngir gën gi ku ci gën a bëgg sëñ Baba ga bëgg sëñ loxo ca kaw ñoom ak gën a gëri xam nga ni man yow la faral yow la faral xam nga ni man yow yaa ma doy yow yaa ñu doy kii de bëgg ko jaamu yàlla la kii de sopp ko jaamu yàlla la lay lay la laawo ku fi gën a bëgg sëñ Babacar loxo ca kaw ñu mar kan kan sëñ Babacar sëñ Babacar man la fekkee man la fekkee yamal xiyaam bul dem bàyyi nu sëñ Babacar man la fekkee yamal xiyaam bul dem bàyyi nu sëñ Babacar man lay wayee yamal xiyaam bul dem bàyyi nu ana soppay président Galaye Gueye ay def leen ay doon ana soppay Galaye Gueye seen loxo ca seen loxo ana soppay Galaye léeg-léeg sargal seen ba sargal waxtul ni daa ni leen nanu ñoo talaata talaata ci simbaaram ja daa àndoo salaata salaata kullu ma daana diga andak ceen bay daana diga maam daana diga hadiisil badiis daana diga tey kay tax gër gi dukaata daana diga bay daana diga maam daana diga gën a bëgg sëñ baa bay daana diga bay daana diga bay daana diga Watch it TV, live, like, oh, lay yow lay bégal yow lay yow ana ñi bëgg sëñ Babacar loxoy ca kaw loxoy ca kaw li ma leen bëggee raw na ma raw na ma ku sopp Cheikh Fall sa loxoy ca kaw sa loxoy ca kaw li ma leen bëggee raw na ma góor ana ñi bëgg sëñ Babacar loxoy ca kaw loxoy ca kaw man yow lay wayal yow lay sëñ Babacar sama safoor bi lay lay bëgg lay lay man yow lay bégal sëñ Babacar sëñ Babacar safooru sëñ Babacar yaa ngi lay wayal man yow lay bégal sëñ Babacar sëñ Babacar ana safooru bi laa fay bi lay wayal e sëñ Babacar sëñ Babacar yow lay bégal yow lay bégal ana jigéenu Cheikh Fall yi def leen ñu sargal ko man yow lay wayal sëñ Babacar sëñ Babacar ana waa kër jaake sëñ ay waay yàlla ay waay lii de neex na ma lii de neex yéen laay waay yàlla yéen ana waa kër jaagi si yéen laay seggal yéen laay seggal man yéen laay waay man yéen laay waay waa waa sama sal man yéen laay bégal man de laay yéen man de laay yéen laay waay yéen laay waay ku bëgg Sëriñ Babacar yow sa loxo ca kaw lii de neex na ma lii de neex yéen laay bégal yéen laay ana waa gàtt

yow lay waayal yow lay waayal et sëñ Babacar Si seen loxo yi ca kaw loxo yi ca kaw ku fi gën a bëgg sëñ Babacar Si loxo ca kaw ñu màggal góor gi may yaa ñu doy may yaa ñu doy Seydi Aboubacar kay rek dara yaa ñu doy doo seen moroom may yaa ñu doy wax leen ko wax leen ko bay doona dina bay doona dina loxo ca kaw loxo ca bay yaa ñu doy bay yaa ñu doy Seydi Aboubacar la tere ki dara man yaa ñu doy seen xoro ana ñuy bëgg sëñ Babacar Si moonu say say yaa ñu doy ku nekk sañ ku na ko ba kay rek dara mana yaa ñu doy doo seen borom ndaw kunda lay wayal si yaa ma doy si yaa ma say Seydi Aboubacar ma gëne kindara ma yaa no do ana sa fay Sono loxo ja kaw Sidi Sono loxo ja kaw Sidi Sono loxo ja kaw sama waaj naan ma yaa nu doy ana sa fay Sidi Sono Sidi Sono moo ma yaa na ko kerek dara ma nu soy doze nu doy ma yaa nu doy Sidi Abou Bakar ki dara Xalifa di géetu si yaa ngi baw Seex Moro Xalifa di géetu si yaa ngi baw Seex Moro Xalifa di géetu si yaa ngi baw Seex Moro wane nga ay meloom jëfe nga ay solom Seex Moro

ana ñi bëgg Baay Saer Fall bay doon la ne ana waa kër Baay Saer bay doon la ku fi gën a bëgg Sëñ Babacar loxo ca kaw bay doon la ne yàlloon te kun fi jëfal am bay ne moo li ko jëf ci mbay seen bay du neen tay leen nu jëf li ci mbay yàlla ci yow ak xam ma seet ci moo ko doyloo te ñoo ko jëm moo tax ñu tënku ci seen ndigal daa fonk mbay moo tax ñu roy sunu te ci tool fekk seeni jëf waay mbay seeti tool liggéey mooy liggéey xandoor bu dammee sax ci waar dori ba saka baaxitu kër bu kama am sefe jëf ñay moroom bay nuroo gay nekk janaam doo seen moroom way nar yow xam ni naaw mooy seen ay jëfal xaru wax ku ko neex neneen doo seen moroom دكتور بعت يا يور الخلية أنا صبي داود جي دكتور بعت يا يور الخلية أنا صبي داود جي دكتور مكرم عجني يور الخلية يا دكتور مكرم عجني يا يور الخلية يا دكتور بعت يا يور الخلية أنا صبي بسوي دكتور la bay waral xol ye sa bay papa jaay docteur batin la bay waral xol ye sa bay papa ye docteur batin la bay waral xol ye sa bay papa ye docteur Batillat yaay wéral ma xol yi ana soppay Basiru Ba docteur Batillat yaay wéral ma xol yi ana soppay Ablaye Fall docteur Batillat yaay wéral ma xol yi ana soppay Bay Daw loxo ja daw docteur Batillat yaay wéral ma xol yi ana Ibn Babacar Gueye docteur Batillat ana soppay Babacar Gueye docteur Batin la خلي أنا صبي بايا بصي دكتور باتي باتي أمر الخلي أنا ديبك بايا بصي دكتور باتي باتي أمر الخلي أنا صبي بايا بصي دكتور باتي باتي أمر الخلي أنا صبي أسنسال دكتور باتي باتي أمر الخلي أنا صبي أسنسال دكتور باتي باتي أمر الخلي du fa dem ba ñaan dootoo fa gën doo seen morom santiral dinaamo bi maa ko yor maa eh, ko yor santiral dinaamo bi maa ko yor sëñ Babacar sëñ Babacar santiral fi naamooy boo ko yor boo ko yor kon la fam sunaago dal si fay doo seen morom si daa ay rëye andaka quartier ku tar defee nu manqué rappel na leen si ay rëye الأمين محمد أبو دلادو سين مرو نبينا شيخ تيجان شريف دوسين مرو شيخنا مودو يا مرو دوسين مرو مودنا خليفة يا مرو دوسين مرو دويل دويل بساعة خم دوسين ci mbay leen jafandu leen ci mbay jafandu leen ci mbay leen jafandu leen ci mbay jafandu leen ci mbay ci mbay jafandu leen ci mbay ci mbay jafandu leen ci mbay yéen jafandu leen ci mbay xutbu baa ngi nii xalifa Babacar xawsu baa ngi nii xalifa Babacar si fardu jaami e ma xalifa Babacar ana soppay Fatal Tiflini. xalifa Babacar Si. ana bëgg sëñ Babacar loxo. xalifa Babacar. mu jàkkaarloog yoon me. xalifa Babacar Si. dala jàkkaarloog Cheikh. xalifa Babacar. mu jàkkaarloog Cheikh. xalifa Babacar Si. non non, non safay siidi senoon def leen nii xalifa Babacar ana safay mama def leen nii ay xalifa Babacar ana safay Ousmane sunu def leen nii xalifa Babacar ana safay Tafa sunu nee na nii xalifa Babacar safay Cheikh Fadi def leen nii loxo ca xalifa Babacar yàlla naa doon doo ziyaare général ziyaar mbay ku bëgg Serigne Babacar sa loxo ca xalifa Babacar ku bëgg Serigne Babacar sa loxo ca xalifa Babacar Si ku bëgg Serigne Babacar sa loxo ca xalifa Babacar at bu nekk ci yéen xalifa Babacar ngeen ñëw tànn ci fii xalifa Babacar digaloon Serigne Babacar xalifa Babacar Si waawan ñëw nañu teew xalifa Babacar waa Ndakaaru ñëw nañu teew xalifa Babacar waa Thiès ñëw nañu teew xalifa Babacar kër jaaga ñëw nañu for Babacar Ndefleng xalifa Babacar ana sa bay as jëm def leen nii loxo jot xalifa Babacar ana sa bay as jëm def leen nii xalifa Babacar ana sa bay Yaasin def leen nii loxo xalifa Babacar ana sa bay mam soxna nee leen nii xalifa Babacar انا سبي ممسخنا لفلني خليفة بابك انا سبي سبكينا نيني خليفة بابك كوبك سيرين بابك ارسل خجل خليفة بابك كوبك اسل فلني صلى خيجل خليفة بابك انا سبي فنجاي لفلني خليفة بابك نجانا نزيار بي نزيار زيار زيار بي انا جبك سيرين بابك